أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بقي جناب من سنة يالسين برام سبحانه وتعالى cant googu tolloog dayoom ci xeewal yi ñu defaral ñu ko mun la limal bu mu jeex di ko dimbali ko moom yàlla subhanahu wa taala di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bakkaar di ko ñaan moom subhanahu wa taala mu teg ñu ci yoonu jub moom mi nga xamante ne képp ku mu teg ci yoonu jub texe nga waaye képp ku mu seetaan ci maanu téem ba nga jàdd yoon sànq amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla yàlla jubal di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg bu dul moom subhanahu wa taala te war ñu koo bokkaale kenn di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la soppeem la tànneefam la xaritam la yàlla ñu yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ko topp ci njubam bi rafetal boobu bis denc di taxaw ñuy dénkaat suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ni ñu ko dénkee ci alquranul karim mu ni ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg dëgg ragal rek bu leen dellu si man mukk bu dul da ngeen maa jébbal seen bopp mbokk yi suñu xutba tey dañ koy sof suñu xutba bi weesu muy al uxuwa fi diin mbokkoo ci diine ñu xamle woon ni lii di mbokkoo ci boppam taarif bi xamle gi mooy aw askan mu bokk ci geño wala ci meen ak lu mu sori sori waaye li ñu namm ci mbokkoo gi mooy ñoo xamante ni yàlla daf leen boole ñu bokkoo ci pas-pas diine yàlla suñu boroom waxoon ci alquraanul karim ni ay yéen nit ñi man yàlla maa leen sàkk def ñii ñuy ay góor def ñii ñu nekk ay jigéen def ay génération ak ay génération ak ay xeet yu wuute ànd ak loolu lépp dama ko def ngir ngeen xamante ngir ngeen jëriñante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ci xadis mais xadis Abu Hurayra yi nga xamante ni mooy tax mbokkoo gi dëgër bañ a jur ab noonoo mu ni na ngeen bañ a bañante kenn ku nekk nangul sa moroom la yàlla def ci moom te bu leen bañante mukk te bu kenn fekk sa moroom muy waxaale ak njaay nga ñëw di waxaale ci kaw waxaale yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba tey wax ci xadis boobu nii jullit dal mbokkam mooy jullit bu mu ko tooñ bu mu ko felantal te it bu mu ko xeeb li war nag ci ab jullit mooy at taqwa te yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na at taqwa ëpp naa joxoñ fi nga xam te moo nekkoon ci xol naka noonu la yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon tamit nii jullit de dafa xaram ci mbokk jullitam ñett yi mooy lii di deretam xaram na ci moom mu tuur ko wala muy jël alalam ci lu dul tey bakkanam wala muy yàq ab deram di ci wax loo xamante ni bu ko nattoon ci moom du jekk ci moom noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee tamit ci xadis mu ni laa yaxilu li muslim an yahjura axaahu fawqa thalathati ayaamin ci xadisu anas ibnu malik radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam warul ci ab jullit muy gàddaay mbokk jullitam di ko tong lu ko ñetti fan ndax lii nga xamante ni mooy dee tiis gi mu tiis rombul ñetti fan boo amee mbokk lu faat lu mu jege-jege ci yow bis bu njëkk ba da ngay sëngéen wante bu mbokk yi dawee ñëw tàmbali laa jaale rek nga commencé siggi loolu buñ ko nattee ci ñetti fan tiis wala dañ ci yow nee na nag ab tongoo moom bu rombee ñetti fan xam leen ne seytaane moo rax moo dox ci diggante ba ñu waxoon gën a li nga xamante ni moom la yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci koo xamee ni dafa bëgg mbokk jullitam te yàlla tax loolu di sabab yàlla di bëgg jaam bi bëgg sa mbokk jullit loolu day sabab yàlla bëgg la te képp ku yàlla bëgg kooku mooy li ñuy wax waliyullah mooy nitu yàlla ci kaw suuf ñu yàlla waayoo te yàlla képp ku mu waayoo mooy doon sa gis mooy doon sa kàddu mooy doon sa lépp loo mën a def te yàlla mu ni ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni yàlla bu bëggee nit dafay woo jibril ba mu ñëw mu ne ko diw yaa ci sa tur ni dama koo bëgg jibril woo malaayka yi ba ñu ñëw mu xamle leen ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala bëgg na diw na ngeen ko bëgg kàddu googu noonu lay lawee ba ci kaw suuf yàlla jël yi nga xamante ni borom borom jikko yu rafet yi yu tedd yi ñëpp dañ lay bëgg te yàlla kese tax te loolu ci kaw suuf lay doon yàlla mu ne bu ma la bëggee sama jaam su ma ko bëggee nee na du tàllal loxoom mukk ni allahuma lu dul dama ko defal loolu mu bëgg sama jaam bi su ma ko bëggee su ma demee ba wat koo faat ci kaw suuf sax dinaa xaw a mel ni luy hésité ci moom ndax bëgg gi ma ko bëgg waaye foofu ma jële ko fa yóbbu ko fi nga xamante ni la ma koy fayee nekkul ci kaw suuf bët mosu cee tegu nopp mosu koo dégg làmmiñ mosu koo ñam te foofu aljanna la yàlla ci yàlla boole mbokkoo ci diina mbokk yi li muy sababee lii tax yàlla bëgg la subhanahu wa taala loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam le ni al muslim jullit mbokkam jullit la war a doon mu war di ko fréquenté muy ixtiyaaru soxba ndaxte ki nga xamante ni pas-pasu diine moo nekk ci moom mu bëgg koo suuxat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xamante ni dafay toogandoo ak boromi xam-xam boromi jikko yu sell kooku de mi ngi mel ni koo xamante ni dafay jaay ay parfum nee na kuy jaay parfum boo toog ak moom di nga fa jëlee xet bu neex wala nga jënd ca parfum ba waaye ki nga xamante ni dafay toog ak borom jikko yu baaxul mu ni dafa mel ni yaa ngi toog ci mbaar moo xamante ni lañ fay wal mooy luy génne ay saxaar ak i tàkk-tàkk nee na tàkk-tàkk yi moom bu bëndulee sa yére di nga fa jëlee saxaar soo xam ne foo génn rek ñu xam ne kii ci ab saxaar la jóge kon bis njëkk mooy faw nga tànn ñi nga xamante ni ñoom ñi nga war a àndal ci mbokkoo bu dëgër loolu nag tekkiwul ni képp koo gis ci moom jikko ju ju safaanu da nga ko war a gàddaay ndax yàlla mooy al muqallibal qulub mooy wëlbati xel yi mooy wëlbati xol yi mooy xool ku ko neex mu mel ni tey ëllëg mu sotti ko ba boo ko gisee doo ko xàmme ngir suuxat mbokk nga xamante ni moo dox ci suñu diggante li ci jiitu moom mooy al ixlaas mooy yow sa wàllu bopp nga sellal sa diggante sa borom subhanahu wa taala sellal bi ngay sellal sa diggante sa borom loolu mooy wuyu ci say cër ba say jëflante ak nit ñi mën a rafet naka noonu lii tax ba tey mbokk doo gën a rafet mooy li yàlla def ci yow muy ay xéewal nga fexe di ci naafila ci jaamu yàlla yi bu dee xam-xam la nga doon ku tabe ci sa xam-xam ci jaamu yàlla yi bu dee alal la nga naafila ci sa alal ci jaamu yàlla yi bu dee wér la nga jaamu yàlla ci sa wér gi ci naafilay guddi wala ci koor boole ko di ñaan yàlla subhanahu wa taala muy jëwanal ñu fi jaam kon yi bokk na ci nga xamante ni mooy li jëkk ngir ñu am pas-pas wala mbokkoo gu rafet ci suñu biir ginnaaw loolu bu fekkee te am na ci yow ba pare yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo gisee nag koo xamante ni jikkoom rafet na boo gisee koo xamante ni kuy tax koo jàkka la nee na nga ko seedeel gëm yàlla te na nga ko xamal ni ko yow dama laa bëgg te yàlla tax nee na bëgg gi nga koy bëgg te yàlla tax bokk na ci nga bokk ci juróom-ñaar ñi nga xamante ni yuzilluhumullahu fi dilli yawma la dilla illa dilla ñi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala nee na dina leen keral yoon saa sallam nee na yàlla dina leen keral ci bis bi nga xamante ni ker du am lu dul keru borom bi subhanahu wa taala bu fekkente ni dellu nañ ci histoire ñii di al muhajiruun wal ansar mooy ñu gàddaayoon jóge Makka ñëw Madina bàyyi woon seen dëkk bien ginnaaw seen alal ñu bàyyi ko ginnaaw seen kër yi ñu bàyyi ko ginnaaw seen njaboot yi ñu bàyyi ko ginnaaw ñii seen soxna yi ñu bàyyi ko ginnaaw ngir rawale lenn rek mooy seen pas-pas keroog ba ñu ñëwee fekk si ñi nga xamante ni ñooy waa ahlul Madina ñooñ dañu ñëwoon ni siiw borom pas-pas yu sell ya nekk Makka ñu ñëw fekk si leen ñu dalal leen ki ñuy wax Saad ibnu Rabia radiallahu anhu borom alal la woon ca madinatul munawwar keroog ba ñuy gàddaay ba egsi yonente bi salaa sallam dafa bokkale diggante muhajiruun ak ansaar Saad ibnu Rabia ñëw ci ba ci Abdurahman ibnu Awf Abdurahman ibnu Awf nekkoon borom alal ca Makka gam bàyyi ba mu ñëwee Saad ibn Rabia daf ne ko yow Abdourahman yàlla moo ñu mbokkale benn bokkoo lañ am mooy bokkoo ci diine gi ñu wax léegi mu ne ko gis nga sama kër yi xoolal bu la ci neex ma jox la ko sama tool yi xoolal bu la ci neex ma jox la ko ba ci sama soxna yi xoolal ku la ci gënal nga wax ma ko ma may ko baat mu jàpp idda bu idda ga jeexee nga jël ko soxna mbokk yi loolu pas-pas bu kawe la ci yéene bi nga yéene sa mbokk jullit bu baax wante kii di Abdourahman ibn Awf daf ni ko yàlla na yàlla barkeel sa njaboot barkeel sa alal wante est-ce que doo ma joxoñ fu marché ba nekk mu wax ko fu marché ba nekk comme que moom Abdourahman ibn Awf dafa amu expert la woon ci wàllum commerce noonu la nekkee biir Madina nekk fa ba takk soxna ci commerce bi mu doon def noonu la continuer continuer ba bokk ci ñi ëpp alal ci Madinatul Munawwar loolu muy bind goo xamante ne nag bépp jullit rawatina ndaw ñi war nañ koo jël mooy nga ñëw ci hébergement sa kër nijaay wala sa kër papa bu ndaw wala ba ci sa kër baay mu yor alal yow nga daal koy jóge rek yoon jox ni ah comme que daal teranga jaa ngi nii jarul mën ma yëngatuut déedéet islam jàngalewul loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu ñëwee ci kër baayam Abu Talib lam ko njëkk a sàkku moom mooy jox ma gift gi ma dem di leen sànni bëggu loon lu yem mu alayhi salatu wasalaam te moom mooy suñu xutbatul xasana moom mooy suñu roy waay bu rafet moo tax yàlla subhana wa taala mu ngi tagg ñii di waa Makka waa Madina ci li ñu defaloon waa Makka mu ne walladina tabawwau daara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma uutuu wa yu'tiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika hum muflihuun mooy ñi nga xamante ni dañoo siiw seen mbokk yi nekk Makka ñëw seet si leen te dalal gi nekk dalal ak xol bu yaatu bu féex lañ leen waajalee mu jaral leen ñuy miraas seen bopp di joxe li nga xamante ni ñoom gën nañ ko bëgg ndax kuy joxe sa alal di joxe sa leneen alal dafa sax ci xol soxna nga ni soxna su gën a rafet nga xool ko ma may ko baat loolu yaa ngi joxe si li nga xamante ni mooy li nga gën a bëgg te ki nga koy jox mooy sa mbokk jullit bi nga xamante ni moom mooy sa mbokkoo bi diine yàlla mu ni képp koo xamante ni def nga lii ñooñ dañoo ñi nga xamante ni ñooy almuflihuuna mooy ay ñu way taxe yàlla ñu yàlla boot ñooñu aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina bi dhanbihim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala ñu ñëwaat suñu taxawaayu ñaareel ci suñu xutba mawdu al uxuwatu fi diin bokk ci diine yàlla suñu borom subhana wa taala moo ñu bind wante ngir ñuy jariñante kenn ku nekk da ngaa soxla sa morom ngir mu am tawazun mooy équilibre ci suñu biir yàlla suñu borom dafa def ay xuquq ay at ay ay àq yoo xamante ni kenn ku ci nekk da nga kaa war a sàmmoon teg sa diggante ak sa moroom ngir mbokk ak gën a rafet yonent bi sallallahu alayhi wasallam tënk ko ci benn xadis mu ni ak mu jullit ak mbokk jullitam de juróom benn yi muy bëgg a wax la bis njëkk mooy mu ni ida laqitahu fa sallim alayhi sa mbokk jullit li nga war a njëkk a def mooy boo jàkkaarloo ak moom rek nee na na nga ko nuyu nuyu bi nga xamante ni mooy bi islam tànn muy ak nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu muy ak ñaan mooy jàmm yàlla jàmm ak yërmande yàlla ak bàtteem yàlla na wàcc ci yow lii mooy di tekki nuyoo badalan ak ñun li ñuy wax léeg-léeg mooy asalaamaaleykum asalaamaaleykum contraire li nga bëggoon wax la mooy yàlla bu jàmm yàlla nekk ci yow. jàmm jooju ñuy ñaanalante suñu biir bokk na liy suuxat ak cofeet suñu diggante bokk na liy jur jàmm ci suñu diggante bokk na liy barkeel suñu diggante moo tax yoon saa saa nee na ku tasanteeg sa mbokk jullit bi nga jëkk a def mooy nga nuyoo mu jàngal ñu ba tey moom alayhi salaatu wasalaam ban warma la ñu war a am ci nuyoo mu ne li yusallima sagir ala al kabir xale su gisee mag moom moo war a daw nuyu ko muy warma muy cër kooku bu fekkonte ne mag mi dafa amoon sax lu mu la dencal ci xale bu xamati wala nangam dina la delloo jox la cër te dina la mën a jege pour dénk la mu ni wal qalil ala al kathir bu ñaar di dox tasanteeg ñett ñuy ñëw nee na ñaar ni waaxu dem nuyu ci ñett ñeene amul cër bu fa am loolu njëkkalante yiw la fastabiqul xayrat mu ni war raakibu ala al maashi ki nga xamante ne dafa war ci dara kooku muy ëpp visibilité ci kiy dox nee na boo ñëwee ba ci moom na nga gaare ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu delloo la ko nga dem te nuyoo boo ne asalaamaaleykum am nga fukki tuyaaba wa rahmatullahi am nga yeneen fukk wa barakaatu am nga yeneen fukk kon koo jàkkaarloo sa mbokku julli nga ñaanal ko ñaan gi ñaan la goo xam ne yàlla da koy nangu ba pare da nga ci am ay tuyaaba ñaareel bi yonent bi salaam jàngale ci ak jullit ak mbokku jullitam mooy ida daaka fa ajibu sa mbokku jullit wala woowee na nga ko wuy ci woote goo xamante ne nag lam lay woo lu dagal na lu yàlla gërëm la nee na na nga ko dem wuy ji boo amulee benn ngànt ndax loolu bokk na ci li tabax luy rafetal seenu nekk seenu dëkk dëkk bi mu ni ñetteel mooy isan tas isan tan sax ka fan sax ku sa mbokku jullit bu sax ko ci yow laaye biir ay conseil nee na na nga ko laaye biir moom de dafa bëggoon a takk soxna wala dafa am ku bëggoon na ñëw ñaan si doomam mu am fu ci xam-xamam yem fu mu ci xalaatam yem wala mu bëgg a mbir sax pour réaliser dara loo xamante ne luy jëmmal luy suuxat ak dëkkin wala nekkin bu rafet la nee na bu la ci woowee na nga ko wuyu ji soo ko wuyu jiwul loolu àq la boo xamante ne ëllëg di nga ko layoo ak moom ndax yaa ci am xam-xam yow yaa ci am xibra yow yaa ci am ak taxawaay goo xam ne yaa ko ci waroon taxaw ñetteel bi wala ñeenteel mooy sa mbokku jullit ñoom saa salaam nee na dafa bokk sa àq yi daf sa diggante ak moom muy ida atasha fa xamida allah fa xamid sa mbokku jullit su tislee tissooli ba sant yàlla mooy ba mu tistiloo ba pare daf ni alhamdulillah nee na fa shammithu na nga ko ndokkeel ndax ki nga xamante ne dafa tisli kooku jamono bi muy tissooli appareil yi nekk ci moom yépp ci fraction de seconde moom dañuy arrêté dellu si waat foofu kon maanaam ak ruuxam mënoon na faa dem dellu si waat di nga dellu si waat nag ci ngay sant yàlla alhamdulillah nee na sa mbokku jullit bi dégg nga wax alhamdulillah nee na daf laa war a ndokkeel ni la yarhamukallah yal na la yàlla yërëm kaddu yi kaddu yi arab la waaye boo ko firee ci olof mu doon lu jekk ci ñu koy wax yal na la yàlla yërëm mu ne la ya yarhamukumullahu yahdikumullahu yuslih baalakum yal na la yàlla jubale tamit te yéwénal suñuy mbir ci diggante tisole rek mbokk yi lii moo fa nekk ci lu yonent bi sallam jàngale juróomeel bi ci àq bi nga xamante ni sa mbokk julli dafay am ci moom te boo ko suuxatee mu nekk luy jub lu rafet ak seen diggante luy rataxal seen diggante mu ne ida marida fa'udhu sa mbokk jullit bu feebaree na nga ko seeti seeti goo xamante ne nag bu fa yàgg te boo demee na nga ko ñaanal bul ko waxit lu koy tiital mu ne le damaa AVC nga ne ko too amoon de moom ndeysaan moom de démb lañ ko doon dox feebar ak dee mbokk yi nii lañ def di nga gis ku feebar ba nga naan kii de ba ma koy jóge amatuma woon ci moom yaakaar mu ñëwaat ba romb la di njëkkalante ak yow sàppee njëkk yi mbokk yi benn fa salam nee na boo seetee sa mbokk bu feebar na nga ko ñaanal soo amee nag wërsëg bu la yàlla jox na nga ko ci jox ndax fi jamono toll ci ordonnance yeeg hôpital bu fa dem jële fa mbuusu ordonnance mbuus goo xam ne mën nga ko jeexe sax te jamono neexul moo tax yoon saa nee na boo fekk mbokk jullit feebaree kooku bu la në bu la dence loon sax ak noonoo seeti gi nga koy seeti day dindi loolu seen diggante te bari na xadis yoo xam ne yoon saa salaam nettali na ko ci ñoo xamante ne loolu moo doxoon seen diggante juróom-benneel bi yoon saa salaam wax ko ci li nga xamante ni àq la bu dox sa diggante ak mbokk sa mbokk jullit te soo ko defee rafetalee loolu bokk na lu yëwanal seen diggante mu ni ida maata fatbaahu sa mbokk jullit bu faatoo nee na na nga topp ci janaasa ba na nga fekke fan koy sange fekke fañ koy waajalee ànd ak moom ba fan koy dencee nga ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ko yëram ko nee na loolu ak la boo koy amel bu fekkee amuloo benn ngant mbokk yi nag ñun suñu jamono jii ngay gis ku faatu li ñuy yitte bi yëpp mooy nañ ko suul te rob bi denc la nga ko desel muy waxtu yu néew yu nga ko desel ñu teg ko fas yéene seede ci moom yoon saa salam ne bu sa mbokk jullit faatoo lépp loo xamoon ci moom ci lu rafet rek na nga ko seedeel loo xamoon ci moom muy safaan na nga ko maan ndaxte yàlla day yabal ay malayka yoo xamante ni loolu ñuy seede ci moom yàlla mën ko comptabiliser ba yërëm ko nga gis koo xamante ni ka ñuy waajal moom daanaka nekk ni siiw bu kàddu yi xawee gi sax muy waay kàddu yi gaaw waay yu yàgg ay protocole yoo xamante ni te wallahi bu doon foofu yekk yaa tëdd foofu di nga bëgg ñu taxaw fa ñaari fan ngir di la ñaanal di la seedeel kon loolu patience boobu nit ñi ñàkk nañ ko te gën na ñàkk chance nag ci ki faat ci jamono ji mooy ko tombeek ak ak ak làmb caaxaan yi wala ku tombeek benn événement boo xam ne événement àdduna yi la daanaka dañ naan siiw yàlla buñ lay rob ba ñu dégg ay yuux da nga gis ko yëkkati téléphone naan ku daan subhanallah mbokk yi xamal li nga amel ak muy sa mbokk jullit boobu noonu nga taxaw nga ñaanal ko rawatina lii di fitnatul qabr mooy fitna yi laaj yi ñu lay laaj sa biir bàmmeel yéen saa saa ne sa mbokk jullit bu faatoo na nga ko ñaanal yàlla mu musal ko ci fitnatul qabr mooy laaj yi ñu koy laaj ci biir bàmmeel ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله